dañoo ànd fu ne ci àddina ànd nañ Angleterre. <laughs> waa yow eh. ànd nañ waaw xaadim yii ci suuf lu waaye ana ñu xel ñaar mi <laughs> tanaana fii daa timbita ba fii daa ñuul fii waaye dama ne. Eh! lii day saa waay nag wax dëgg yàlla nag roy yàlla bu ah, ba du asamaan. jeex dañuy jël euh, cinq personnes wala dix. Mhm. Euh, ku ci sa sax nekk ñu may la benn enveloppe. ay ca tëyal enveloppe bi. yaa koy maye tey yaay sama xarit man yow laa bëgg. fii yaay sama frère neex a àndal. waaw taxawal ni tapp ko ci sa dënn bi na mel ne na mel ne médaille. waxuñu la nga denc ko Ndiaye. Ndiaye téyel ko nii rek yow mel na ko yor ardoise. wóorul de te man def nii. <laughs> ay ca mi yaa ngi dem ba ci téléphone bi xool euh, cinq personnes euh, la ñuy jël doog a tàggatoo ay ca ku ci wërsëgam nekk allo ki ci ligne bi ñu bëri euh, fin émission bi lañuy xaar. Mhm. waaw nii la mel nee naa la am na ñoo xam ne dañ naan est-ce que ni xaadim nee mm. ah loo bëgg ma xaadim. <laughs> yàlla baax na Mia bëggal jàmm no Mia yàlla baax na man dama. mais <laughs> Amina. man noonu laaj ma daal sar. waaw yow est-ce que amul mbokk naar wala ah, sar amul mbokk naar yow. man sam papa tubaab la. Eh, dama xool yow tarkalla ana ñu doon wax ne moo tax yenn saa yi foog. Ah, non ñu doon wax naan est-ce que timpi tàmpawul. Eh, dañu la jàkkaarloo ak yow nañu mën a ci <laughs> tànk boobu ci biir sama tànk la. <laughs> miyaa am na ko ma bind message naan ma yow rek leen ay doomu tubaab ngeen dugal ci seen suufu table yi. dina ah, loolu amul xarabara yàlla baax na ma ñëw. ay ñu daw ca ligne ba mais balaa boobu dañuy nuyu rek sama euh, bijouterie boobu le euh, Alassane maa ngi lay nuyu depuis euh, Marseille leen Alassane maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Mounas Dieng Sala Waynde ci ligne bi ñu départ Ndiaye allo. allo. oui ma chérie. allo. allo oui ça va. ça va merci pare nga pour ñu jox la envelop bi. waaw. noo tudd yow ak foo ñuy woowee. Rama Diop dëkk Kër Massar. Rama Diop Rama man génne naa sama benn tànk xanaa benn bi rek doy na bu ñaari ñëwee day ëpp. ay ca Rama dem na boo ma joxee keneen ma jël allo keneen ki ci ligne bi. allo. alo Rama yaa ngi may dégg. waaw yaa ngi may dégg kay. Kër Massar pare nga pour ñu may la suñ dernière enveloppe bi Rama dem na alo keneen ki ci ligne bi njaay waxal ak moom. alo alo alo oui. waaw salaamaaleykum. ça soxna si noo tudd ak fooy wootee. Mousli Dia Sagata Guèye. Mousli Mousli Dia Sagata. Dia. Sagata Dia. Sagata Guèye. yow loolu fu ne. moo nekk côté Daaru Mbuxti ci kaw. ay ñu demaat jëlaat keneen nee naa la kooku amul sens pour jël euh, dernière enveloppe bi ci émission bi tey cinq lañ leen waxoon deux moo dem aloo keneen allo soxna si walla sëñ bi allo non xaadim yow danga maa bëgg walla mu yaa moo ma bëgg cum lan moo tax ko jongo ngeen koy génne di ko wane cum man la aw konaate awa may ma damay wax waaw <laughs> sama benn xarit xaadim xam nga nu muy def awa waa may ma ma ñëw nga ne lan Mia may ma ma waxal sama bopp lu baax <laughs> awa yaa ngi may déglu waa duma la ko xañ waaye may ma awa sama benn xarit bu ñuy waxtaan waa day jékki-jékki rek ne ma kon ci kanam soxna Aminatu ma ne ko damay wax mu ne ma ay ca waxal <laughs> waa waxal ay ca awa nu sama greffage mel ay ca awa dem na nee naa la enveloppe bi moom ku ko bëgg di ma déglu. ndax damay wax. waxal la neex. ah. ayca ñu ngi ci troisième personne ñu ngi ci quatrième personne bi Aliou soxna si wala sëñ bi. alors soxna Aliouna. ah dafa mel ne sa wërsëg la de gaawal baralal li ngay wax gaaw. waxal sa tur rek ak sa leer fi nga dëkk ak adresse yi gaaw. Amina. accéléré rek yow ndax nga mën koo gagné accéléré li nga bëgg wax yëpp. alors alors Amina mu la Sophie Ndiaye Linguère. waaw ñu ne nga accéléré bul nuyoo yow demal mu gaaw rek waxal sa tur sa san sa. Sophie. ah. ayca jox ma keneen mi yaa dernière personne baa ngi noonu boo duggee rek accéléré la allo. yaa am rafet na. waaw da xam lu baax da yàgg ci loxo loxo bu ñu la téyee xam nga ko dofoo ñaar dërëm dalu la ngay dof dof lu nekk ci biir nit ñi kañ kañ yi mais wuy ma ku yàgg ci ay loxo. allo. allo Amina. waaw baral accéléré say mbir rek yow mën koo yóbbu. allo Amina. waxal sa tur sa sant accéléré fi nga dëkk ak yooyu. waaw Awa yaa ñëwaat. awa. waaw may naa la enveloppe bu juróomi junni bi bala moo dagg fan nga dëkk. Sébikotaan. Sébikotaan ayca nañ la jël ci suuf awa dégg nga. waaw ayca ah awa looy wax bala moo dagg fii tee ngaa dem. si xamoo sax téléphone TFM yow ay ca miyaa bu fekkee ne noppi nga rek mën nañoo tàggatoo hmm, damay remercier nag ki nga xamante ne mooy euh, Vieux Diouf nee naa ko 2011 euh, ba 2000 euh, ba 2000 ba 2020 ñu ngi ci lan sax yow. 2020. waaw 2011 ba 2020 xam nga ne ànd bu yàgg bi dëgg la kon Vieux Diouf maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la remercier bu baax a baax a baax di nag gërëm ki nga xam ne mooy ku fa nekk miyaa ki joxe xaalis bi nu mu tudd Kumba Xaalis. Mm-hmm. Kumba Xaalis madame nan. ah yaa ko def célibataire kumba ah ma la waa ah heureuse mënoo Kumba kenn du ko teg fii di ko promo ayca <laughs> kon merci beaucoup Kumba kontaan nañ ci yow di remercier nag ki nga xamante ne nii euh, mooy xaadim euh, am jogomaay sama tonton am boobu borom son boobu nga xam ne macha allah du la taqal micro di la jam ay baaraamam fu ne ah ak Jamil si ak Issa Sène Pape Sène ah kon maa ngi nuyu Issa seen Pape seen lu ma ci xam Issa Pape Sène. waaw nu mu tudd nga naan waaw. Ah, ah, ah, xaw ma ko dama ay ca maa ngi nuyu Moussa seen ki may mujjee nuyu nag ku nekk xam na ni kenn la ci man barki Serigne Touba Mbacke man li ma mett nag Sénégal dañ naan Ablaye waat laa ci yàgg nit ñi naan ma Macky Sall nga ñoom xamuñ sax fu ma fu ma bokk waaye ki may mujjee nuyu ci kanam tuuti dinaa si ñëw yow na looy tàggatoo yow. waa du ñu souhaiter joyeux anniversaire à Kor Faye happy birthday to you di ko ziar di nuyu sëñ Mamoul Niang euh, di ko ñaanal jàmm ak tawféex euh, Mami maa ngi lay nuyu di nuyu euh, soxna Umu Xayri Guèye nekk ca parcelle unité 20 ak téléspectateur yi ñu doon seetaan waaye spécialement gërëm à El Hadj Diamé Dansokho ak soxnaam Adja Kumba Sow ak toute la famille Dansokho. wàññeekuwul woon nelawul woon. nooy doomam la kii son fils. Euh, ah. Diamé Dansokho Diamé Dansokho d'accord waaw waaw Mbodj Malick maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ayca merci beaucoup Mia madame Ndour euh, yow boo saa yoo génnee gën gën naa la macha allah sama jeeg bu baax boobu la yaayu Fatou Kiné Fatou Kiné yaakaarool ku dul Ahmadou Bamba Khadimul Khadim. Mm. te nee naa la yow ku ne indi na fi ku ne waaye yow indi be ba bébé Fatou Kiné mu ndaw sama américaine yooyu le kon Mia maa ngi lay remercier bu baax waaye laataa loolu bu leen fàtte ni ki ma habillé ki ma maquillé takkal ma greffage bu rafet bi ñu ngi koy wax institut Amel Khadim sama kanam gi jotewul ak yow dara Samba waaw kay euh, sama kanam gi ki ma maquillé euh, nee na nga xool sa seere bi mhm. nee na caméra bi dafa dem mu mhm. yaa ak lan yaayu fat na loo wax Aïcha nee na nga xool seere bi pour ñu mën a gërëm Amélia euh, institut Amel Beauté salon boo xam ne la benn la fii ci Sénégal nee naa la ma nga ca Sacré Cœur mhm. euh, Amel Beauté nag képp ku bëgg mu defaral la sa kanam da ngeen di ñëw Sacré Cœur foo taxaw ne institut Amel Beauté boo jàddee Auchan Sacré Cœur bi rek yaa ngi ci Amel waaye bu leen fàtte nag ne ki ma habillé tey ñi ngi koy wax mhm. euh, bus collection ah moo ma habillé lu rafet lii moom itamit am na WhatsApp am bus ku ko bëgg a jot ci WhatsApp am da nga koy woo ci plus 0 514 euh, da ngay def plus da ngay def 00 1 514 550 85 75 mbala ngeen woo assista assistante am fii Awa hmm, nag mi ngi ci 78 euh, di nga ma may rek ma joxe numéro Awa bi 2 minutes mi yaa ayca nee naa la Awa mi ngi ci. Euh, waa na numéro Awa boobu am 15 yi waaw Awa da nga koy woo ci 78 603. 78 603 15 15 numéro yooyu ma leen jox yëpp am na euh, WhatsApp kooku mooy euh, Bigué suñu système bu baax la am yu am classe. ñu koy mm. wax euh, biche collection. nee naa la kon ku ci bëgg lu rafet da ngay seeti waa biche collection. Mm. merci beaucoup yéen ñu doon seetaan spécialisme. nu ñu koy waxee wala particulier yaa. particulièrement. plus <laughs> particulièrement ñu koy jox ki nga xam ne mooy Khadim si sama caméraman bi nga xam ne dama koo bëgg.